warma warma aji sinna garare Thank you. ñu ngi leen di féliciter pour seen mobilisation di nuyu kilifa dëkk bi di nuyu suñu responsable yi di nuyu Alé Niang di nuyu responsable des femmes mais ñu ngi nuyu tamit responsable des jeunes yi fi taxaw ak mag yi Pastef sama kàddu ci ñetti poñ laa koy teg benn bi ci Ousmane Sonko laay wax sama kàddu bu njëkk ci Ousmane Sonko laay wax damay fàttali ne janvier deux mille vingt deux bi ñuy dem élection locale Ousmane Sonko dafa nekk ci liste yi Macky Sall ànd ak ay mbokkam di wurit di wurit di wurit ba sepp Ousmane Sonko ci wax ni dañu leen baax Ousmane Sonko wax ni ma nekk ci liste yi ak ma ñàkk a nekk ci liste yi sama yoon ci. damay campagne pour ñu gagné. boobu dama sell. ngeen baal ma ngeen baal ma janvier deux mille vingt deux élection locale la ñu investir ko Ziguinchor mu bàyyi ko Ziguinchor campagne suñu candidat ba yàlla ma ñu ndam man mii ci bokkoon dafa ñëw campagnal ma campagnal keneen ak keneen ak keneen ba mu gañee bàyyi jigéen soo maanaam fal maire yëpp fal maire bu taxaw di ko saaga tey jii ma ne loolu janvier deux mille vingt deux ñu ma ne la ma ne ma ne dégg baax li wax dégg baax li wax ñu ne juillet deux mille vingt indi ka liste député mu nekk ci liste nationale Macky Sall di wurit di wurit ba dindi Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne loolu du ma tere campagne yor otoom yor dooleem yor kàddoom gu set jub yor pas-pasam ci réew mii doxal ñëpp waxal ñëpp ñu ngi ñëpp. peut-être jàll ñu dem ba assemblée nationale indi Macky Sall ci ballottage li may wax nii juillet deux mille vingt deux la ñu ñëw élection présidentielle deux mille vingt quatre Macky Sall di fenn na mag ay mbokkam jàpp suñu gars yi ñii mu rey leen ñii mu tëj leen amul ñu ñem na kaso bi ak man leen ak man waaw man dama dama dama dem ma ne balaa mos mosaat waaw ma ne ñu dem élection présidentielle gars di wuruj di wuruj ba ne Ousmane du candidat ànd ak maire bi rek fekk naa ne élection ne man man nekk candidat nga ñàkk a nekk candidat dinañ génne candidat gars yi dañ ko ci kaso dañ génne mu toog ci kaso bi des juróom-ñetti fan Ousmane génn tànn candidat muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd ak moom di campagne dañ fal ko est-ce que yéen a ngi dégg lu leen wax juillet 2022 Ousmane Sonko nekk tête de liste Macky Sall xañ ñu ñu ne ñun Sonko mooy suñu candidat Macky Sall xañ ko ko mu jël Diomaye jox ñu ànd moom campagne ñu door ñu fal ñu fal Diomaye élection bi ñu jëm nekk élection Ousmane Sonko ma li ñu la joxoon juillet 2022. waaw la ci ko mars 2024. waaw novembre 2024 17 novembre bii. la ngeen Ousmane Sonko li nga yéene woon juillet 2022 yéene la ko mars 2024 ñu ngi la koy jox 17 novembre 2024. lii laa bëgg mu leer ndax képp kuy voté yaa leen Macky Sall je t'emmerde. ak na ko Ousmane. 2022 xañ na ko mars 2024 ñun ñoo koy jox en novembre 2024 lii mooy élection bi dañoo wax ci Kayar Amadou Ba candidat wax na ko Kayar ñett yii ñett yii dafay leer muy lan muy mbeex mi di mel ni yi yàlla dëgëñ ci suuf muy jur ko ngeen xam ko baax baax ak joor gi ñett yii ñoo fi ne ñett yëpp jur ay meññeent waaye taxul waa Kayar suuri ci ngeen nekk góor muñ ko gëm seen bopp di liggéey ñu ñëw ba fii am président bu ñu fal mu ne man lii laa yéene waa Kayar Ousmane Sonko ngeen xam ne lu mu leen wax dëgg la taxaw lii la ñu waa yéene waa Kayar est-ce que di ngeen nangu ku ñëw fii di leen gëmloo ni lii mën da nekk ma yokk ci ne jaare ndoy mii ñu def ko candidat magum jëmm sant Ndoye ni moom war koo ñaanal ànd ak moom mu taxaw ne moom lay jàmmaar loolu loolu gàcce damay xeex di xeex di xeex ba yàlla génn ci sa deret sa doom mu ñëw taxaw di la xeexal lan ngay def ndax da a xeex wala da ngay ne doom kaa la doole moo tax ñu waa Kayar lu ngeen def lu may doole jaarandoo yii ah dina dal waaw te su nga sal dal na fii ci géej Kawaar dina dal fële ca Jandeer dina dal ak feneen ne fii li fiy def mooy le novembre ñun wutuñu majorité ñun wutuñu majorité ñun 150 députés la ñuy wut 150 députés la ñuy wut loolu a voté ji affaire yi moom amul ma dem te ñëw ma waxaat ko fii ñu kenn du fi campagne ci Kawaar kii passé bi campagne bu leen ko may kenn ndax yéen dong yéen a fi ne yéen a ko yor ñun yéen dong la ñuy toog salaamaaleykum